Ami cher fidèle téléspectateur de Sénégal 7 bonsoir nuyuwaat nañ leen bu baax a baax kenn ku nekk ci turam ak santam di leen dalal jàmm nag ci seen émission bi di cloche euh, tey nag ñoo am mbégte ak bànneex ñëw fii ci cité Alioune Sow nar fe fekk si nag benn xale boo xamante ni ndaanaan la ci li mu doon tubaar fa kàlla ndax mën naa way lool ku way sax ba mu ba mu reprendre ko moo la koy far dàkkale koo koy kan koo koy jiy la euh, macha allah dama koy bàyyi rek mu nuyoo ak yéen macha allah la charmante nuroo waale nuroo waale kumba gawlo noo def na mu naa la waa maala raw di la nuyu bu baax baax di nuyu waa Sénégal waa di kontaan ci teewaay bi merci. vraiment mu nekk nag wax dëgg yàlla xale bu talentueuse comme ni ngeen ko gisee waaye man li ma gën a neex ci moom nag mooy elle a su garder li nga xamante ni mooy sa droiture ba macha allah tubaarfakala xale yëpp bëgg a ñuul. Euh, acca ñu daal di ñëw rek ci li nga xamante ni yaa ngi ko door muy carrière bi. nga daal di concentré wu ci li nga xamante ni mooy musique wax dëgg yàlla mu nekk loo xamante ni nag c'est pas évident du tout nga nekk xale mais aussi ngay rampe muy am ay tole ngay def yu extraordinaire nan la la engouement boobu ak amouru musique bi duggee. ah d'abord dañuy delloo di sant yàlla bu baax a baax loolu moom yaakaar naa ni yàlla moo ko def ci man ba may xale ba léegi damaa yàgg bëgg way waa noonu daal la demee. macha allah donc bu mel ne rek rêve ak souhait boo xamante ne ba tey da nga ko exécuté. continuer ko di ko def mu mu neex ba bëgg a dee. waaw noonu la demee yàlla def ma jaar seen petit gàlle bu ma fa jógee waa taje ak waa Rock Team Music waaw mu demee nii daal. <laughs> barfakal la muy neex ba bëgg a dee euh, comme ni mu ko waxee nag fi nga euh, daanelee sànq euh, laa bëgg a yëkkatee ndax gis nañ la yaag say frère Chérifou ak Diop Sebren wax dëgg yàlla nga reprendre seen son Linguère def ko dammeel mu neex lool ban kan moo la jox idée boobu. <laughs> dammel man maa ko bëgg rek maa bëgg Linguère léegi yàlla def ma daje ak ñoom ma ni lii faw mu ko ko léegi si laa ko defee dammel waaw. Mhm. macha allah euh, que bi nga koy def euh, waxtaan nga ci ak ñoom am na idée yu ñu la jox. waa ñoom tamit ñu nekk ñoo xam ne ñu ñàkk ki ñaan ba mu ñëwee ne dama koy def waa dañ ne ma loolu amul benn problème waa amul benn problème ndaxte xam nga rek bëgg yëg moo koy fay waa noonu la demee. Euh, bi ci loolu amee it xam nga son bi ku ko déglu dina xam ne ñooñu fa nga ko jëlee mais est-ce que bi nga koy dugal YouTube amul ay réclamation ay jafe-jafe yoo ci am. non non même pas amu ko ndaxte ba ma koy def maa ngi nekk ak ñoom fii nii Rock Team waaw koy def maa ngi nekk fii ak ñoom léegi ma wax leen que nii son bi Linguère daf ma neex dama kaa bëgg a koofu ñu ne ma amul benn problème jàppale ma ci tamit bu baax a baax waaw. macha allah fi ñu ko ñëpp xamee nag euh, mooy fële ca seen petit gàlle macha allah mu demoon nag ba demi-finale jàmbaare ba bëggee de euh, lan mooy say rapport ak waa seen petit ah, seen petit tamit ay nit yu baax lañu nit yu ñàkk ki ñaan ah, jaar nañ fa. waa ñu wane ñu tamit mën nañ ni sax tamit ñoom ci ñu ñu teeta ci lañ bokk teeta nañu ci musique ndaxte ku xam ku njëkk a xam Dieyla fa nga ko xamee vraiment tamit waa macha mais rek j'espère que yéen a ngi am ay retour yoo xamante ni mi ngi bàyyee foo bàyyeekoo ci ñoom yaa ngi leen di dégg de temps en temps. si maa ngi leen di dégg maa ngi leen di dégg bu baax a baax d'ailleurs sax euh, ba damel génnee rek ñoom ñëpp woon a ma félicité ma waa ñu nekk ay nit yu ñàkk ki ñaar nit yu amul benn problème waaw. en dehors même de seen petit te Tata Ngoni yaa ngi koy dégg. waaw maa ngi koy dégg sama yaay jooju di ko nuyu bu baax a baax di ko wax que ni tey sax lañ ko gën a soxla ci suñu liggéey waa ndax ndaxte nekk na tamit nit ko ñàkk gi ñaan nit ko baax nit ko ñu tette ci musique di ko wax daal lu mu ci mën a càppee rek tey lañ ko gën a soxla. <laughs> mu amoon nag ay rumeur yoo xamante ni Sénégal ak rumeur donc yow mi nga xamante ni yaay toog toujours yaa ci indi ay leeral euh, ñu jàpp ne Dieyla euh, euh, comment se fait-il que mu dem ba demi-finale mais du yenn saa bu waa seen petit gàlle fi yenn organisation yi wala yenn événement yi duñ ko ci gis lan moo waral. ah loolu peut-être loolu ñoom la ndaxte da ngay gis ñoo xam ne dem nañ ba final wala ñu dem ba ay demi-finale doo leen dégg doo leen gis peut daal loolu ci ñoom la. <laughs> mais daal quand même yow yaa ngi am ay rapport yu yu yu baax ak ñoom. waaw man moom maa ngi digganteeg ñoom waaw. <laughs> Euh, ba tey nag yeneen i rumeur parce que nag doo fi toog ba pare may toog di laaj ci ñeneen yow laa koy laaj. ñu ne seen petit gàlle euh, donte kaf a foo la woon agréé ak génn talent nit ñi dañ fi daan gis ay genre maraboutage ay saafara ay butéel ñu bëggoon a xam ba xam yow exactement yow ma fa nekkoon am nga ci ay preuve ak wala loo ñu ci mën a leeral. ah man moom loolu vraiment gisuma ko ndax jàppuma li ma fa gis daal mooy que nii nekk nañu xale sikk nañu jàmm dañu nekk ci kër gi di foo di kaf di reetaan waa d'ailleurs sax dama koy nam ndax loolu dafa neex dara dàq ko. <laughs> loolu yëpp rek ay ah ay rumeur la xam nga moom ñu ñëw moom seeni xeetu wax <laughs> mbaa du ay cas rek lañ mën acca <laughs> ba tey dañuy gën a continuer rek parce que gis nañ tàmmeel mu daal di cartonné ni xale góor yëpp nag waaye dafa mel ni dafa soulever benn masse <laughs> boo xamante ni xale yëpp fi ñu toll ni ñu ngi nobante mbaa bokkooñ non bokkuma ci man taluma lool ah maag yow ay wax wax non taluma lool kenn nekku fi non kenn nekku fi man tollu goo si loolu tollu goo ci eh, fayal caméra yi ñu waxtaan non non tollaguma ci daal <laughs> kon yaa ngi ci jàng. waaw ci jàng bi ak ci musique bi ndaxte loolu laa am te ci laa toll waa ci laa nekk. actuellement ban classe ngay actuellement maa ngi def troisième waa di jàngee macha allah. kon BFM ngay def ren. waaw moom laay def. la ko yàlla may jàmm ci barke Sëñ Touba euh, au delà maak euh, ci ñi nga xamante ni ñoom nga bokkaloon seen bëti gàlle ku ci mel ne maam Diarra Thiès euh, Soxu Bébé ak ki nga xamante ni mooy Mame Diarra Diaspora ñoo jàng leen di. waaw maa ngeen leen di ngeen ay rapport si am nañ kay ñoom ñëpp maa ngi leen di dégg ñoom ñëpp maa ngi leen di dégg te it ma leen di fàttali rek yéen ñi nga xamante nii yéenay safoo tey bëgg toujours Sénégal 7 li nga xamante ni mooy seen émission cloche je rappelle ki ñu dalal tey du kenn ku dul Dieyla bu seen petit galle euh, bu Damel Dieyla bu Chérifou ah bu Yacine ak ñëpp ñi nga xamante ne wala sax nag Dieyla Dieyla bu Sénégal euh, dañuy ñëwaat rek tuuti ci li nga xamante ni mooy sa rencontre ak euh, sa nuróowaale sa idole Kumba bi nga ko gisee nan nga def. ii loolu moom kontaante rek laa ci am vraiment ndax dafa nekk nit koo xam ne dafa sori ci man yàlla moo ko def waaw depuis ma nekkee xale ba léegi suy wey sax dama naan oh yaay kii man lay wayal de. daf daan def sax lu mu def dama koy toppandoo di ko def léegi su ma rombee si koñ dañ naan kii du kuma mu ndaw may ree rek ndax loolu rek laa ci doon weer dama ko bëgg waaw macha allah. moom sax wax na ko neen dañoo nuroo <laughs> nee na bi nga njëkk a génnee sa clip bi dañ ne ko dama xooli sa nuroo waale bi macha allah mu nekk nag émotion boo xamante saa boo gisee sa ki nga bëgg maanaam sa idole da ngay kontaan mais nag lan nga mën a jàpp ci moom li nga xamante ni moo la gën a attiré ci moom ban qualité nga xamante ni yow saa li tax nga bëgg sax nag gaaw la Seck loolu moo tax ban qualité. ah ay woyam ay woyam neex na ma torop waa nu mu mel tamit neex na ma comportement wam nu mu diiñee waa ñu bëggee tamit Sénégal yegg fu soree sori ndaxte fu mu dem dafa bëgg réewam mu ñuy présenté fu nekk vraiment nit ku ñàkk kiñaan ñaan la daal waaw ba nga fa jógee it ba tey am na ay retour parce que ci interview bi ngeen defoon ci benn site de la place maa ngi gis euh, muy xamle ne dañ la war a inscrire est-ce que yooyu ba tey am na ay aboutissement si si man ak moom tout le temps ñu ngi ñoo ngi déggante daal moom mi ngi may conseiller lu baax a baax sama marraine la sama tata ku ñàkk ki ñaan la jeex na man nag tey duma fi jóg te waxoo ma caat bëgg naa la boobu noonu wala dammel nga ma xanaa doo ma dammel dama jigéen la <laughs> danga may lingeer aca mi ngi noonu de son vrai nom Dieyla ñu xamoon ko ca fa nga xamante ni mooy seen petit gàlle plaisir laa doon am nag ci émission cloche dafa xew nag tubaar fa gàlla moo tax tey ma daal di koy seet si mu nekkoon honneur ak plaisir ci ñun euh, lu bref la waaye dinañ ko gën a yaatal yenn saa yi ci studio ba incha allah su ko defee ñu gën a waxtaanee te clip bi bu génnaatee ci kàttanu yàlla xanaa di nga ñëw euh, fale ñu daal di koy def euh, benn playback bu mag. waaw noonu lay demee incha allah. yaa ñuy waajal leen. waaw maa ngi waaj actuellement ñoo ngi studio ñoo ngi liggéey bu baax a baax. nañu xaar daal ci lépp waaw incha allah euh, bu BFM bi jàllee la ñu mën a xaar beneen single wala actuellement avant ñuy def examen yi mën nañoo xaar beneen single ci avant ñu koy def sax mën nañu ko xaar tamit après tamit mën nañu ko xaar très bientôt daal léegi daal incha allah tey nag damaa bëgg nga ma ci traditionnel ginnaaw boo ma boo ma lingeeralee ba pare ñëwal ma ci traditionel loo xamante ni gaawuñu ko woon gis ci ci Dieyla ma xool siri kumbalaw bi mbuur firjil atileti ngalanka aman moon si siki paate samal gaañu leen sire nga cees mate nga aneen sire mi ñu boole ñaari dégg na ca gàmbay lu fa si bari bari danaan jaam ñi boobi leen seen yaay agréable macha allah fa tubar fa kàlla sama yaram bi sax day daw su may dégg su may dégg waaye yal na la yàlla defal jàmm la fa la cat ci barki Seydina Mouhamed ma la koy ñaanal nag au fond du cœur parce que dama bëgg xale bu am jom nit da gëm sa bopp li fi nekk kenn moomu ko donc fonce avance te nga gëm sa bopp comme ni la ko sa sa idole ba waxoon artist du late gëmal sa bopp góor aja may ma ci dammeel bi wala li ngeen nga may defal loo ma defal baax mbëggeel ni mu neexee ku ko dundul du ko seedee dafay féexal xol dalay wan yoon nga xam fi nga féete mbëggeel ni mu neexee ku ko dundul du ko seedee dafay féexal xol dalay wan yoon nga xam fi nga féete bu dee turbinaalu loo bëgg naa àtte ma tëj ma ci sa nangu naa liñ ma wana tax ma dëddu sama àdduna penu miin a bëgg naa maa ngi rëni rëni caat rëni ngir gis la I wanna stay all day by your side mm-hmm. bëgg naa la sama lingeer bëgg naa la fasal nga ma samay bu mu xool jarabi yoo su ma la xamul woon dof laay doon foo ne fa laay ne xam nga ci ngëm laay dee caat foo ne fa laay ne xam nga ci ngëm laay dee wali neexul yow soob na man tamit fi nga ne rek lay nekk sama rek ji kontaan naa yal na la yàlla defal jàmm di la bàyyi nag nga joxe sa mot de la ci émission bi ci kàttanu yàlla ak ban message ngay jili may la ban message ngay sànni sa moroom xale yi nga xamante ni wax dëgg yàlla actuellement bëgg nañu mel ni yow parce que dorénavant tu es tu es star actuellement wax dëgg yàlla lan ban conseil nga leen di ah di leen wax ñu jàpp sa bàyyi rek ndaxte nit moom ci loo góorgóorlu rek yàlla dala ci jàppale loo bëgg rek yàlla dala ci jàppale ñu jàpp rek te loolu ñu bëgg yàlla jàppale leen ci yàlla buñ ci gis dara lu leen ragal lu ñu ragal waa kay loolu rek laa leen ñaanal di leen di la remercier yow tamit di kontaan bu baax di remercier samay fans ki nga xam ne lépp ñoom la bëgg jëy laa ba muy xale ba tey waa di kontaan ci waa Rock Team tamit kenn demul ñu des daal. di remercier sama yaay sama papa ñoom ñi nga xam ne mën naa ne lépp ñoom la kenn demul ñu des ñoom ñi ma bàyyeeg lépp waaw wóolu ma di leen ñaanal yàlla bàyyi leen sama kanam ba lépp lu ñuy séentu ci man yàlla def ko waaw di leen remercier daal xam nga tey jii li dama am chance damaa ñëw fekk ko mu nekk ci bonne humeur am ñu waxtaan wàcc fi ba mu neex tubaab fakkaal ay temps da ko daan invité mu naan sëfa yi waaye yooyu yëpp jeex na kontaan nañu di la ñaanal jàmm yàgg yokk tekki jariñu ñaanu Serigne Saliou la woon da xale bu nekkee ci yoon dog koy ñaanal yàlla defal la tawféex ba doo gis dara loo ragal ci barki Serigne Touba en tout cas man moom yaay sama star xanaa neex ça a été un plaisir euh, kontaan noonu nañ bu baax c'était l'émission La Cloche tey ki ñu invité Dieyla di leen jox beneen euh, numéro rek ci kàttanu sunu borom ak beneen daanaan ñu daal di koy waxtaane à tout à l'heure et merci beaucoup